ange billahi mina sheytaan bismillahi rahmaan alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa waa àdduna bépp waa Sénégal asalaamaaleykum waaye asalaamaaleykum waa Xuru Mbàkke ni ngeen ko gisee ñu ngi ci bis bi nga xamante ni mooy màggalu Xuru Mbàkke gi Xuru Mbàkke nag di dëkk bu am taareex boo xamante ni njabootu suñu jaay ñu bari fee nekk fukki ngi fii Touba bu ñuy wax sëñ maam Abibulaay nekk maanaam sëriñ Mbay Jaxate tamit fi la nekk maanaam muy dëkk bu am taarix ak mu jot nag ñu def màggal di ko barkeelu ci bërëb bi ak di maanaam euh, waxtaani bërëb bi di maanaam barkeelu siyaar bi nga xam ne am nekk ñu koy fas yéene ñëw nag dëkkal waa at mi yëpp Mbàkke nag gis ngeen ko maanaam mi ngi nii boo wàccee ci tali bi rek maanaam maanaam boo boo daanaka mën ngaa bañ a wàcc tali bi sax boo taxawee doo xool rek di nga gis bërëb bii ngay jàkkaarloo bërëb bii mooy bërëb baa ngi nii bërëb bu Serigne Abdou Salam bu Serigne Touba Serigne fii ci Xuru uh, Mbàkke waaw néeg bi moom lañu tuddee néegu maam jaare waaw néeg bu am taarix taarix la nag uh, maanaam uh, am lu bari la ci xew yoo xamante ni maanaam nit euh, ku barkeel la boo xamante ni daanaka nee nañ fi waaye ñaan suñu borom na la ko defal muy euh, néeg bu barkeel soxna jaaro maanaam moom lañ ko maanaam bàyyil fii moo fi moo nekkum néegam waaw waaw kon moo nekk ni ñu koy dëgtal waat na yëpp néeg bi néegu maam bi nag ñu fii ci pénc mi euh, làng ak rëbb doomam ji di sëriñ kii sëriñ maam Abibulaahi mu nekk nii ci pénc mi manam bo joge foofu yaangi jakkalo eh, ah, ni manam euh jakk ji mo nek ni fi la tamit seigne bay jaxatu nek ci bir kon manam ñu koy siar di dekkal dëkkal bo xolé ne nak manam moy bërëb bi nga xamanteni moy mooy bi nga xamanteni fi la doon seigne Tuubaa yi fukki doom ñu ngi fi fukki doomi sëñ ñoo nekk ci bëri bi fii la maanaam li def fii benn ci buntu mooy wane ni seen yi ak seen i waajur nekk fii tur maanaam tableau moo nekk nii waaye fii ñu jàkkaar lool mooy kër maam Mor Anta Sali fi nga xam fi la dëkkoon ñu fi nekkee ci Xuru Mbàkke waaw léegi nag ci jamono sëñ Mbay Jaxate la barkeel bërëb la gën a maanaam xam barke bi nekk ci bërëb bi mu mujj koo def jàkka mu nekk nii muy kër maam Mor Anta Sali bi nga xamante ni maanaam fi la dëkkoon mu nekk nii ci maanaam uh, Foro Mbacke bërëb baa ngi nii kër. waaye dëkk bi Ndiallo tudd. lolu ñu wax ak tour tànk fi la ko cheikhul khadim defé lolu tax lé moy négu soxna ci saket wi ñu wax ne soxna ci da koo da koo téye woon sa xiin bi saxi mamour ante fakki fi la won ci digënté bii la won fi mo né kon kër li moy négu néegu soxna si lee moo nekkoon fi fi fi ko tan ki mamour asal def ni ngi ni yéeg ci daamar yi di dem ci tenn ba pour barkeelu ji teen bi nga xamante ni fa la soxna jaara doon roté ji manam maanaam doon yóbbaale sëriñ bi manam mu nekk ni gis ngeen mbokk talib yëpp ngi ni di manam dem ci liggéey bu ni teen baa ngi nii teen bii la soxna jaara doon rek ci wa kon ñu ngi koy seetlu ñëpp bu ci manam baa ngi nii gis ngeen ko ñu ko defaraatee ba ma sha allah ñu doon bëre bo xamanteni bëre bu parkel la bëre bu taarix la bëre bo xamanteni bëre bu ndam la manam ñu koy dëkkal ñëpp waaw garab gaa ngi nii garab gaa ngi nii te soxna si Moussa ñu si teen bi fële maanaam teen bi nekk ne ñuy seen maanaam fii la daan bàyyi sëriñ bi manam mu xaar ko fi mu dem ci manam liggéeyu turam euh, bi nekk di dëkk boo xam ne dëkk bu tànn la dëkk boo xam ne bu euh, for la ci histoire yoonu murid di dëkku fajug aajo dëkku njëggalu bakar, euh, ku fi dugg suñu borom jéggal la say bàkkaar loolu moom ci kàddu Sëñ Abdou lañ ko nangoo woon kon dëkk la boo xam Euh, addina bi yëpp war nañ koo xam sëñ Babacar sa liggéey bi li tax mu am solo mooy xamle loo xam ne am na ñu bari ñoo xam ne jotuñu ko woon a xam. xamlee ko noo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne xamewuñ ko woon noonu. Euh, xame xam ko nag ci waxtu boo xam ne it tal nañu ko ba war faa mën a dem euh, balaa ñoo génn àddina wala balaa jota di leen dab kon sëñ Babacar liggéey bi ñu ngi la ciy ndokkeel. fii nag mooy Xuru xam naa ne.